naa bu bëggee ci ji barke yow mbal xiyaam la ko baar ku yëg da ah, bu yàgg kay. asalaamaaleykum wa rahmatulah téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di leen balu àq bu baax a baax a baax yaakaar naa ne ci gëj a gise gi waaye damay bàyyi ñu dem seetaan revue bi dellu siwaat si plateau bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 26 juillet 2021 dañu ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di suñu lamb nag tey xëtamu njëkk fa mu ca xëy génn wala la mu ca xëy fësal bokk na ci ka nga xam ne moo di la vingt cinquante deux de Mbour muy Bombardier moom mi nga xam ne nag mu ngay préparé digganteem ak Balla Gaye numéro 2 mu mel ni ki nag ka nga xam ne nag moom moo xëy di wax mooy ka koy entraîné di ab coach sam di mbay booy mbay booy daal la mu xëy xam ne daal nee na li am ba des daal loo ci mën a dégg daal ah seen diggante ak ki nga xam ne nii moom moo di Balla Gaye numéro 2 maanaam boo bëggee dégg dëgg moom Balla Gaye numéro 2 du masa attaqué ki nga xam ne moo di bombardier loolu mooy wax ki nga xam ne ni moom moo di mbay booy yemu ca moom mbay booy tamit de xam le na ne daal soo bëggee dégg dëgg booy dem guerre moom maanaam sa armu yépp ngay meeb yóbbaale ko ne na itam daal loolu moom lu leer naññ la attaque ba nag moom la tax mu jàpp ne Balla du attaqué ne na daal di bu ko defee la ko cay fekk du neex ndax bu keroogee dina teel lem ay dëbësam teel a dugg këram ñibbi ndax combat ba du yàgg day gaaw lool boo attaqué Bombardier te bu yàggee tamit maanaam bu bëree ba yàggee dina metti ci moom waaye jàpp ne daal seen ay arme moom moom mbay booy ne du loo xam ne nii lu nuy wax kenn la waaye daal la ñu xam daal bu ñuy dem moom benn arme duñ ko bàyyi ginnaaw lépp la ñuy meeb yóbbaale ko ci arène ba ngir ko yéene nag nag jëflante ak Balla Gaye ba mu saf sap ñeneen ñoo xam ne nii moom jëflante seenu jëflante jàppoon nañ ko ba waroon koo def démb bokkoon na ci neeku réll ak marle ñu ne déet ne waay Eumeu Sène senior Grand Mbagnick Ibou Ndiaye Obali Pape Yekini Malick Ndiaye 37 fou Bou Siteu ak yeneen combat yoo xam ne combat yooyu yëpp ci benn bés la naroon a am ña amaloon moom mooy waa rent Dakar maanaam boog waa rent DKR ñoom daal ñoo tëggoon li nga xam ne nii moom waroon am démb fa fa nga xam ne moroon ci arène nationale waaye mbiree nag mujjul am ñu ne déet ne waaye feneen foo xam ne tamit démb la lamb waroon na faa am ka ko waroon amal moom mooy jëy production mu waroon dox ci diggante naaru soogaas ak ka nga xam ne nii moom moo di ka nga xam ne moo di Jackson bu géej a way waaye mbir yooyu yëpp mujjul am la ko waral daal maanaam ca la xëy dégg wala la ñuy topp fan yëpp muy coow loo xam ne mu ngi ne gadd ci làmb ji maanaam daal préfet wala gouverneur boog ñoom ñoom daal ñoom ñoo xam ne daal wàllum sécurité moom ñu koo joxe te sécurité ku ne xam ne ne su amulee lamb mënta am mel ni ki nag coow loolu fi mu nekk nii moom ku nekk yaa ngay yuuxu wala ñëpp ñu nga cay coow soo bëggee dégg dégg nag mu ña nga xam ne ñoom ñoo yore école de ya ak écrit ya ñu ñu leen di wooye waa ariel sa moom ka nga xam ne ni bokk na ci seen kuréel googa di baytiir ndoor mooy di baytiir ndooy baytiir daal la mu xëy xamle moom ma jiiteeg ri yoof nee na lay am ba daal nee na mbir yi duñ ko seetaan mu sedd plainte daal la ñuy def te kañuy plainte du kenn ku dul waa CNC ndax nag li ñu def la ñu jàpp teguñu ko fenn itam nag maanaam nit ki mënoo ko signé signé contrat am daf la ko war lépp muy promoteur ba ak mbër ya nga toog ba mu neex la daal nga ne ko làmb ji mën la am ñu ne lu tax nga ne sécurité moo tax ñu ne mbir ñoom duñu ko bàyyi noonu mu sedd waaye itam ku yebu daal itam nga tiit ci keneen yeneen combat yoo xam ne daal ñu ngi koy xaar muy ay yu mag bokk na si Balla Bombardier Siteu Papa Sow combat yooyu day yëg li kaay bi ne ku yebu tiit ca de ndax nag fi mu nekk nii lay xeeñ mooy mu bañ a am sunu lamb moo xëy di nu wax lu mel ni kii noonu Bira Sène tamit ma nga xam ne moo jiite lamb ji mu nga xëy di wax ne daal li am ba des moom làmb mu ne su ko organiser te du am sécurité ne na daal loolu mooy li am waaye nag jàpp na moom biraa daal ne na waxuñu kenn saison bi dafa tëj loolu moom nee na waxaguñ ko kenn waaye daal li am ba des daal moom Bira la mu gis daal nena làmb ji moom bés ko organiser faw mu ànd ak la nga xam ne ni moom moo di la nga xam ne moo di sécurité père Max Mbargane nag moom daa mel ni tontu na ko ba mu saf-sap ne na Kobira sa wax jooju ngay ji ngay wax waxi lan la ndax jamono jooj ngeen di wax a sécurité ne man taam ci làmb ji concert yaak maanaam soirée ya ak lépp mu ngay am te foofa fu ci ne maanaam sécurité am na fa te itam la ngeen fa war a def lañ fa war a def def nañ ko fa kon kay ne na ko waxal leneen wala ngeen wax leneen li ngeen wax kay mooy état moom moo bëggul làmb loolu mooy waxi père Max Mbargane nee nag du ca jóg tey suba waxi nopp bi ba ba muy gis leneen keneen koo xam ne nii moom mu ngay wax muy jéey seen ma nga xam ne tamit moom moo tëggoon naaru sooga ak marle jéen moom jéey moom nee na pare na ngir waxtaan parce que nag mbir mi daal ni mu demee nii moom doy na waar ba yegg ci lool beneen yëglikaay boo xam ne fa la niy dem muy les arènes les arènes nag moom regroupement fermé ba nga xam ne moom la Balla gay numéro 2 nekkee kër a Ndiaye daal ci la ñu xëy dikkal nee na Balla day ña muy liggéeyal moom moo di Baboy saa Thiès ak su ko sim fi mu nekk nii daal ci ak tëjugu métte métte la ñu ne di liggéey liggéey bu métte métte di waajal le 31 juillet 31 juillet jooju nag daa mel ni fi mu nekk nii bañ a am nga mu ga nga xam ne moo cay xeeñ gaston bi mi ko tëgg moom ne na daal li am ba des moom ne na datam moom mu ngi ko jàpp ba tey maintenir ko Pape Abdou Fall ma nga xam ne tamit le premier août moo tëgg Siteu ak Papa Sow tamit mu nga xëy di wax de ñu ne ko Pape Abdou Pape daal ne na man duma état état daal bu dee moom mooy jël décision moom moo war a jël ay décision te di ko déglu loolu mooy li nga xam ne nii moom moo di waxi Pape Abdou Fall keneen koo xam ne nii moom maanaam ay mbiram dafa metti lool muy ka nga xam ne moom moo di jimbo ma nga xam ne nii moom moo jiite rent DKR moom daal la mu xëy xamle ginnaaw ba ñu annulé la nga xam ne moo di seen làmb ne na dey lii metti na ba foo ko takk weesu na ko ndax ne na lu toll ci faneeri fanweeri millions yoo xam ne daal moom la jon jot a génne ngir nag doon waajal benn journée boo xam ne nii moom la waroon tëgg d ñu xëy xëy ne ko annulé na ko annulé nañu ko te nee na la ko ca waroon lépp def na ko ci ci ay dépense mel ne que da daal mbir ma metti na ko ba yegg ci lool te itam nag metti na képp képp koo xam ne ni yaa ngi ci làmb waaye am na loo xam ne bu amee daal ba mu leen bett yëglikaay bii di Les Arènes moo xëy tey dikkal ñu ci muy dajawaat boo xam ne bu amee ci diggante ma seen ak tay seen daal muy ay retrouvailles bu ko maanaam bu mu bett kenn ndax nag daa mel ni daal ah seen diggante daal daa mel ni yëglikaay mu ngi nuy xam ne daal ka nga xam ne mu di Eumeu Sène ca Lutte TV daal bu fekkee ne dégg nañ ko fa wax ja daal la mu gis mooy xëy na bés mën na ñëwaat famille ba nga xam ne moo di famille bul faale retrouvé wu waat àndaat nekk benn te Wolof Njaay ne na mbooloo mooy doole waaye li am ba des daal loo ci mën a dégg coow li bëri na ci làmba ji waaye coow li li muy bare bare bare bare li ci am ba des daal mooy boo bëggee dégg dëgg moom ay wax boo koy wax na leer na ñuul na ñuul na weex na weex waaye làqatu ci ginnaaw di def ay affaire yu doya doy war li am démb ku ne xam na ne ñaaw na jékkul jaaduwul ay jeunes muy jimboo muy jéy seen ay xale yoo xam ne ay sénégalais lañu jël seen ay millions fay ko ay nit nga toog ba mu neex la nga ne la annulé nañ ko ndax sécurité moo amul loolu de la ñu def démb ba tax làmb yi amul jërë ngeen kon dégg ngeen yëglikaay yi tey li ñu xëy indi muy sunu làmb les arènes waaye balaa ñuy sori dañuy leen di balu àq di leen balu àq bu baax a baax a baax waaye di leen baal tamit di ñaan yàlla ba mu boole ñu jéggal may ñu ñu koy feete ay at yu bare bare bare bare bare muy tabaski bi nga xam ne moom moom la ñu génnee barki démb maanaam di àllarba ji nu génne muy bés boo xam ne bés bu màgg la si ñun jullit yi ah di bésu tabaski di bés bés bu nga xam ne nas la soo xam ne nii ah wax dëgg yàlla su leera a leer la su dëgër a dëgër la macha allah passé nañ ko si jàmm ñaan yàlla at bu ñëw rek dàq bi passé woon ah loolu moo tax tax ngeen ko yoon ñu gis di jégalu tamit si gëj a gisante bi bu baax a baax a baax maa ngi ciy jégalu di wax nekk rek dañu demoon tamit xam nga rek ci famille bi parce que tamit dafay baax des fois yu mel noonu nga dem passé ko ci sa biir famille passé ko ci sa ay mbokk te loolu lañ defoon demoon bawal ci suñu ay famille suñu ay mbokk passé ko fa loolu moo tax fan yëpp gisu ngeen Babacar déggu ngeen ko ci wàllum làmb ji loolu la woon rek mais maa ngi leen di bëgg yéen ñëpp ñi nga xam ne woo nañu ma balu ma ak ñi nga xam ne woo naa leen ak ñi nga xam ne woowuñu ma bëggu nañ ma woote woowuñu ma parce que olof ne daanu dajul suuf waaye ku ci nekk rek ci yéen moo xam da may seetaan wala nga ak foo mën a nekk si àddina bi rek jàppal ne jox naa la suma loxo balu la ak di la baal te itam noonu ma ko defee noonu ngeen ko defee parce que olof ne na euh, ñu bokkub teen ñooy laxasoo ay goj noonu la demee tey nag euh, da dafa tombe ak lundi di le 26 juillet 2021 bi ñu xëyee nag wala depuis bërki démb ba tey donte nekku moon dakaar sax wala démb laa dugg si dakaar coow li ku ne dégg na ku mu coowal làmb ji waaw defe naa ne loolu am na waaye sunu làmb tey mu njëkk Bombardier moo ca fes kay wax mooy mbay booy may dànkaafu Balla Gaye 2 waaw waaw waaw nee na Balla Gaye 2 na du du du attaqué Bombardier parce que daa jàpp ne bu ko attaqué làmb ja day teel a jeex Balla day teel a ñibbi ndax day gaaw a daanu loolu la mbay booy wax jàpp ne tamit bu dee combat bu yàgg la ah nee na itam bu keroogee ñoom lu mu ci a doon daal maanaam amul lu leen ci yéem wala leen di jaaxal xam le na tamit maanaam ci geer lañ jëm te guerre moom boo ciy jëm sa arme yëpp ngay yóbbaale waaw geer boo ciy dem sa arme yëpp ngay yóbbaale xaw ma nag ndax Balla dina ko attaqué wala du ko attaqué waaye xam naa dinañ attaqué ante demu loolu moom leer na ma ñoom ñaar parce que ñoom ñaar li ma waxoon laay waxaat rek muy bala di Bombardier mësuma cee gis ci ñoom ñaar seen carrière ba tey ku ci jël avertissement ndax dangay ngay dellu ginnaaw loolu dalu leen kon jàppal ne ñaari attaquant ñooy bëre ñaar ñu dëgër fit ñaar ñu mën a bëre ñaari mbër waada ñooy bëre yàlla dañ ko te tal ko ñu xool fan la wane di mujj ak ay bëtam bu ñu ñëwee nag ci li nga xam ne fi mu nekk nii olof ne na lu defu waxulu lu ay di njàmbat moo am fan yi ci làmb ji muy li am démb ci dimanche ji ku ne xam na ne démb rent DKR Pape Sarr ànd ak ñoom ñoom Jimbo ñoom Alain ñoom ñu nekk ay jeunes ah nekk Europe di fa yëngutu xool ne seen sport national sport de seenu muy làmb war nañ ci participer ñu sol seen ay dàll ñëw Sénégal ànd ak ay nit rawatina ku mel ni Pape Sarr ànd def taxawal seen structure di liggéey jël ay avance jox ko ay mbër lu toll ci fanweeri million lu ko ëpp ah ñu dem ba suba la làmb ji ñu ne leen làmb ji mënatul am ñu ne leen lu tax ñu ne parce que man mënta am noon mu leen dale noonu la dale jéey seen moom itam démb ku ne xam ne ne stadium Iba la doon tëg naar sogas ak nga xam ne moom moo di Jackson bu Guédiawaye muy loo xam ne maanaam xamee su nes koy layalee coolu nag bëri na seetaan nañ plateau télé yi seetaan ci internet bi ku nekk nga ciy wax waaye man li ma gëm mooy wala li ma jàpp man Babacar mooy hmm? dafa am loo xam ne dañ koo nar di ko làq maanaam saison bi la ñu nar a tëj hmm, te di ko làq parce que làq gi mooy boo xëyee nga ne sécurité mantaam xaw ma préfet la xaw ma gouverneur nga ne sécurité mantaam service d'ordre yi du ñu dem service d'ordre kay fu mu demul manifestation bu mu demul ku kan mooy jël risque di organiser làmb sans service d'ordre bu fa nit gaañoo wala wala leen dal ko fa looy wax kon ça veut dire que mooy làmb ja du am yaa ngi dégg te pourtant jamono boobu boo duggee ci dëkk bi wala nga dugg si biir Dakar da ngay gis ay soirée ay ñu koy organiser kon lan mooy problème mu làmb ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite loolu tamit jar na laaj question bu jar posé la ah parce que mbir mi foofu la nekk lan mooy problème mu làmb ak ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu ay autorités yi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite parce que nag bu yàggee ba yàgg ba yàggee ba yàgg li li li olof di wax li ñëpp wax day doon dëgg maanaam état làmb ji da ko neexul wala nangam nit ñi am na ñu koy véhiculer am ah message boobu te day naqaree weddi parce que tamit yii di am nii te doo xam fu ñu ko teg maanaam duñ la wax lu leer ah service d'ordre nga ne moo tere làmb ci am ci pour quelle raison maanaam service d'ordre dafa manqué ci réew mi wala lan moo xew ah ñun mënuñu xam lan moo xew metti na tropa ah ma lan moo xew bu fekkente ne problème coronavirus la ñuy wax coronavirus feebar la boo xam ne malaadi la mu ñëw ci àddina bi yàlla wàcce ko fi muy dal ay doomu aadama ñu ñaan yàlla na ko fi yàlla na ko yàlla jëlee bi mu fi ñëwee tam fekk na fi ay feebar yaa ngi dégg yuy dal nit ñi waaye du tere nit ñaa ngay faju ñu ngay moytu mesure barrière ñu ngi koy jël maanaam mooy raxasoo sa zel sol sa masque loolu la ñuy digal képp kuy sénégalais di ko wax ku mu mën a doon loolu defe naa nag euh, mënoon nañu bu fekkente ne loolu la waa état bi war na génn wax ko ne dañuy maanaam manifestation amatul mu daj ñëpp maanaam ñu bañ jàppal kii bàyyil kii maanaam kumba am ndey kumba amul ndey ah mais bu fekkente ne ñii dañuy def ñee ñu ane ñu ñu ñu tere leen loolu day indi ay xool yu tàng ci am réew te yàggee la muy jur du doon jàmm kon encore une fois président Macky Sall yow mi ñu jiite xoolal bu baax a baax a baax a baax a baax askan wi nga jiite maanaam xool leen di leen bàyyi xel ëpp am na solo mais am na ñu nga xam ne nii ci ñi nga xam ne ñoom nga nekkal ñu ne dañ lay liggéeyle man man pour man dañ lay yàqal bari na ci de lu leer laay wax am na ci ñoo xam ne nii pour man yàqaleen tax a jóg ndax nag am na loo xam ne nii yàqal ki nga ki nga àndal la kon yow mi nga xam ne yow la ñu dénk askan wi wóolu la dénk la nga ne ci sa deuxième mandat xool bu baax a baax a baax lii xew parce que tamit gis nañ fii la fois passée ay caravane am na fi ak ay tournée politique président Macky Sall def na ko ak yeneen politiciens gis nañ fi Bougane Gueye Dany def na ko ak ñeneen ak ñeneen ay soirée di am lépp di am ñu ñëw ba dernier jour wala ba dernier heure ñu ne làmb ji doo am hmm? ani les promoteurs yooyu seen ay journée muy jéy seen ak waa rente Dakar ñoom Jimbo. muy lu metti te li ñu te te li nar a garaaw mooy tey bu ñu an ñooñ seeni journée balde nañ du am ñu jëm weekend prochain ci ay journée Gaston Mbengue war a tëgg le 31 bët set le premier Papa Abdou Fall war a tëgg le 7 août Fallou Ndiaye war a tëgg waa léegi li may laaj mooy ndax ñooñu journée yi di ñëw dañuy tëgg ndax Gaston day tëgg ndax Papa Abdou Fall day tëgg ndax Fallou Ndiaye day tëgg ñooñ bu ñu leen bàyyee ñu tëgg léegi jimboo ñu tere ko mu tëgg moo géey seen lu muy doon lu muy niru est-ce que loolu dina jur jàmm bu fekkente ne da ngeen saison bi da ngeen koo tëj li gën mooy ngeen génn devant les sénégalais ne leen saison bi tëj na ñu xam nuñ koy régler loolu luñ cay wax man pour man loolu moo gën ah ñuy def di di di zambala di def nii di def naan loolu loolu du ko jar bu saison bi tëjee wax leen ko sénégalais yéen état bi wala yéen waa CNG bu fekkente ne dañ leen a wax ne saison bi tëj na ngeen jël seen am courage su taxaw yéen bira seen yaag sa équipe nañu saison bi tëj na état moo leen ne ngeen tëj saison bi mu leer loolu mooy li gën a wóor waaye nag tere nañu jimboo dem mu tëgg ak jëy seen weekend prochain ay journée am te promoteur yi ko tëgg ay promoteur yu mag lañu bu ñu leen bàyyee ñu tëgg ah dinañ ne kumba am ndey kumba amul ndey te bu keroogee kenn du ko mën a weddi te bu keroogee lu mu jur tamit jàpp leen ni yéen yéen ñi nga xam ne yéen ñu jiite yéen ay responsable bi loolu moom na leer nañ loolu mooy li nga xam ne nii moom lu ñuy wax la ci mbir yi nga xam ne am na fi parce que nag lamb ji sonn na làmb ji bari na coow promoteurs yi sonn nañu trop trop trop trop trop promoteurs yoo xam ne dañuy ñëw ci làmb nekk ay gan ñu di leen yàqal di leen def ay affaire ah promoteurs yi fi nekkoon tamit di dundal làmb ji boo xoolee ñoom ñëpp fi mu nekk nii ci ay jafe ndax Pa Abdou Fall combat bi kañ la ko gàddu woon ah kañ jëy seen noonu keneen noonu keneen noonu keneen noonu promoteur yëpp te loolu lépp lan la ah wax dëgg yàlla tamit am na ay jamono làmb daaw kon promoteur yi amuñu woon amuñu woon problème bi amuñu problème bi te encore une fois dañ koy wax di ko waxaat de président man de bañu ma la man Babacar yàlla mi ñu tim xam na ko te ku la yéene nga réussir sa mission la waaye lii tax nga réussir sa mission bokk na ci ah sénégalais yi ñu yem même pied d'égalité waaw ci li nga xam ne moom la ñu bokk ci réew mi tolloo nag ci am-am wala tolloo ci màqaama wala tolloo ci barke yooyu mënta am loolu yàlla defu ko waaye nag bu ñu gën ci ay gën yoo xam ne nii day am lu muy niru te am na ñu koy faral di wax di message yooyu nañu teg lépp ci yoon ku nekk li nga moom ñu jox la ko waaye ñii tëgguñu démb ñu annulé leen ndax sécurité man lu yéen ma trop bu fekkee prochaine bu ñëwee bu ñu bàyyi ñu tëgg parce que day Siteu day def open press am kon kooku jàpp na jàpp na day bëri dimanche le premier Bombardier ak Balla Gaye day jàpp nañ dañuy bëri Gaston Mbengue gis nañ ko fii ci sournal bi nga xam ne moom moo di les arènes nee na moom datam da koy maintenir maanaam day Balla Bombardier c'est à maintenir waaw toujours toujours waaw toujours maintenir waaw loolu la wax Pa Abdou Fall moom la mu xamle ba tey ci journal bi nee na moom du état ah bay jël ab décision buy décision am état koy jël wax na dëgg waaw état bi bu dee jël décision yéen a koy jël bi ngeen jël nag wax leen ko mu clair moo gën bu dee da ngeen a ndaje yi ngeen wax ko waaye nag bu fekkente ne ñay tëgg seen ay soirée rek ñoom ñu koy tëgg waa ji moom ñu maanaam problème bu ñëw daal ñu sànni ko waa làmb ji bu yàggee lu muy doon feebar bi nag waxuñu kenn ne newul ci dëkk bi ñun duñu ko wax parce que duñu ay médecin duñu ay spécialiste loolu suñu loolu suñu domaine la ñu xam daal mooy ku nu mën a waxal mooy na ngay am sa masque di ko takk na ngay sol yor sa gel di raxas say loxo yaa ngi dégg di moytu loolu moom la ñuy wax képp ku mu mën a doon waaye wax dëgg yàlla daal ni mbir yi bëgg a doxee moom dafay doye doy waar lool lool lool lool lool lool lool loolu mooy li nga xam ne ni daal tey moom lañ doon indi ñun di ko wax ci yëglikaay yi parce que boo xoolee parce que benn mbir moom moo fi nekk tey Baytiir Ndoor ne bay Baytiir Ndoor Baytiir Ndoor président écurie Yoff moom la dañuy porte plainte CNG yaa ngi dégg parce que jàpp nañ ne daal mbir yi ni mu demee parce que mbir yoo xam ne ah affaire dafa doy waar Bira tamit mu ngay wax problème mu sécurité nee na bu sécurité amul mbir yi du mën a am waaw wax na dëgg kay moom mi jiite CNG wax na dëgg Balde lu toll ni làmb bu ñu nee sécurité amul nu muy amee loolu kay mënta ne waaye damaa yaakaar ne ah lu tee xam daa yàggut li xew xalaat naa di ngeen ko wax nit ñi te mooy ne saison bi tëj na man Babacar moom damaa gëm ne saison bi tëj nañ ko man loolu laa gëm ba ba may gis contraire loolu waaye su ngeen ko tëjee nag ah damaa yaakaar ne wata ngeen taxas wet parce que football ba football nañ seen championnat ba mu jeex aayu ngeen leen ko ñeneen a ngay def seen ay programme ñeneen noonu ñeneen noonu yaa ngi dégg waaye nag bëgg nekk euh, bukki sàngoo deru bay dugg ci biir bay di def la neex baax na fii nit ñi nelawatuñ de bàyyi leen xel bu baax a baax a baax a baax te ku ci ne am na foo bokk am na foo jóge am na loo doon parce que ku ne am na lu la yàlla cërale boo ci kaw boo xamee sa bopp yaa ngi dégg kon nañu encore une fois yéen autorités yi ñuy jiite en commençant par le président bi nga xam ne yow dañ laa votel teg la fi ngay gouverne sunum réew encore une fois ah gën a la bàyyi xel ci sénégalais yi seen ay wax gën a jege sénégalais yi dafay lay dimbali am na ci ñenn ñoo xam ne boo leen di déglu wallaay la sim fi ñuy dugg fa ñuy mujj ak yow du nekk lu nga xam ne lu gën lay doon te ëllëg bu leen amee ñoom ba ñu daw bàyyi la fa la ñuy def am na ci ñoo xam ne la ñuy doxe ndax am na ci ñoo xam ne nii moom maanaam comme ay kii rek la ñu mer ñoom dañu waaw ay mën naa ne weñ lañ sax fu tooy rek ñu toog ñoom ah seen yoon newu ci ñoom lijjantiwuñu leneen waaw tey am na ñoo xam ne ñu ngi naan Macky Sall di di di ci di di ko défendre di maanaam di wax di di di ci waxee ne ni maa la ko wax bal di suba buñ doon président Macky Sall maanaam jeex na keneen falu de président ñu changé discours tout de suite amuñu ci sax am ma dem te ñëw ñenn ñoo saar yooyu nag dañoo mel ni man bëri fii bu ñu nekkee yow seen ceeb di tooy dañ lay jay duñ la wax li ne waaw te yooyu amut benn njariñ ndax olof ne na la bëy daan dunde ba am sikkim bu gëmee boromam mën na caane ba ba muy xëy wuy ji boromam yàlla na yéex yaa ngi dégg parce que nag président de la république mi jiite réew mi bu ñu bu ñu sañoon nguuram day ñoŋ mu jiite réew mi ci jàmm mu bu koy joxe bis buy wàcc wàcc ci jàmm keneen ñëw continue eh, eh, continuer réew mi dem ñun loolu la ñuy ñaan ci sunum réew mu mu dal waaye li koy indi mooy yéen ñi ci kaw yéen jëkk indi stabilité bi yaa ngi dégg yéen mbër yi tamit surtout mbër yu mag yi yéen les VIP may eh, cité seen président Gris yéen tamit am na loo nga xam ne ni am ngeen ci part parce que li dal démb ci mbër yi ci seen rakki bëri la dal te dégguñu leen dégg dégguñu leen ci man de dégguma leen ci bokk xëy na wax ngeen ci li dal démb seen rakk ki mbër la dal parce que gis nañ ci seen biir mu dem ba bi Gris doo jiitee association bi ñu gis ne am na ñoo xam ne dañoo génnaat defar beneen association des jeunes lutteurs ngir lan parce que jàpp nañ ne ñoom les VIP ñoom mbër yu ndaw yi intéressé wuñu leen ñoom seen bopp leen intéressé que souvent dañ leen gis ci bureau ministre yi ñu toog ak ñoom di waxtaan ak ñoom te ñoom mbër yu ndaw yi xëy na seen loxo yeggul foofa defe loolu nekkul loo xam ne lu neex la yéen ñi dagg ay licence yëpp di ay mbër mois en commençant par Gris Bordeaux seen président ba ki ci mujj am licence pour man yéen war a bokk ay intérêt yu ngeen di xeex donte bu ngeen bokk ay gis-gis nag waaye daal li dal démb yow Gris Bordeaux yow Bombardier yow Balla Gaye yow Eumeu Sène yow Lac de Guiers 2 yow Tapha Tine yow Boy Niang yow Ama yow Modou Lo le roi des arènes li arrivé démb seen ay rakki mbër la dal ay xale ñoo xam ne nii ba ci set ak Papa Sow ah ca loo booba la ñu bokk loo VIP ba parce que ñu nga ca li arrivé démb seen ay parki mbër la ñu dal kon defe naa ne itam war ngeen a gën a gestu ñooñu bu baax a baax a baax di dalal seen xel parce que seen ay rakk lañ te mbir mi metti na trop trop trop trop waaye encore une fois la mu waxoon laay wax rek balde état bi na xam ne làmb sport de seenu la fii la dëkk jëggaaniwuñu ko waaw jëggaaniwuñu ko de fii la dëkk de mbir yi nañ ko teg ci aw yoon moo gën kumbaam am ndey kuma amul ndey amul njëriñ gënalante amul baaxul day yàq nit ki boo ko bëggee xañu cërëm bu yàggee la muy def mooy jàkkaarloog yow lu mu ca góobee gar ko di balu ñëpp ax di ñaanal ñëpp jàmm mais di encore eh, une fois di ñaanal suñu soppe yi di leen wax ne dal tabaski gi moo taxoon ngeen gëjoon ñoo gis yàlla na jàmm yàgg senegal feebar bi yàlla na dem nañu gën a nag farlu ci fagaru gi masque yeeg zel yi xam nga yooyu yëpp nañ ko gën di taxawu parce que tamit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 naa bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baal ku yëg da ngay ñàkk